abonné leen ci suñu su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju deuxième partie bi ni lañ ko bëgg a proposer moom mooy on peut mën naa ñëwaat ci rapidement ci li ma waxoon ministre yi tontu ku nekk joxe ay leeral comme ça ci deux heures de temps parce que une heure la ñu waxoon ci deux heures de temps après ñu lever séance bi parce que ce sont les mêmes questions qui vont revenir étant donné qu'on va se tous les mois ci yàlla àndee donc euh, et le gouvernement aussi à vos dispositions euh, li ma wax tous les mois c'est au niveau de la primature mais je pense qu'au niveau euh, du ministère du commerce ou du ministère de la des communications du ministère et des autres ministères d'ailleurs ñoom ñëpp dinañ nekk à votre disposition kon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm xam naa ni beneen yoon bu ñuy wootee dinañ woote fu gën a yaatu ndax xamuñu woon ni nii ngeen di ñëwee daf ñuy won aussi euh, di cër bi ngeen jox xëy na li ñuy li ñuy liggéey ak li ngeen bëgg a xam loolu yëpp dañ ci am lu ciy jàngat li ciy jàngat mooy war nañ di gën a wax ak yéen war nañ di gën a waxtaan ak yéen war nañu gën a gaaw ci di leen jox ay information moom ay xew-xew yu metti yu fi amoon yoo xam ni jur na fi ay bakkan yu ñu fi ñàkk jur na fi aussi ay yàqu-yàqu yu baree baree bari moo xam alal ju ñu bokk la ñun ñëpp muy li ñuy wooye bien public moo xam alal ji nga xam ni ay nit ñoo ko moom ñaq seen ñaq ñu am ay manifestation ay manifestant yu dal ci ñoom lii yëpp nag bi muy am li ko euh, sooke mooy ci atte bi nga xam ni amoon na fii diggante euh, Ousmane Sonko ak euh, aji Sarr moo am yi nga xam ni son ko waxoon na ko ci ci wàllu euh, woote ndax nit ñi xeexal xeexal ko woote ngir nit ñi jàmmarloog force de l'ordre yi ba woote woon na it nañu ñëw ci ndakaaru daje fi bu ñu fi dajee it li nga xam ne jàppoon nañ ko ci jàppoon na ko moom mooy nañu jéem a dem ci palais ba génnee fa président Macky Sall ñuy tàmbali nag di jaale ñi nga xam ni wàññeeku nañ fi ndax Sénégal kenn ëpp fi doomu Sénégal yëpp a yem ci biir Sénégal kenn ci ñun warut a dëgg la nag ku dem yàlla ko dogal ndax li ëpp ci ñun dañoo gëm moo xam jullit lañu walla ci yeneen diine lañu bokk gëm-gëm am na waaye la ko sabab dëgg neex yàlla doonul loo xam ni ñu ngi koy rafetlu gënul ñu ngi koy ñaawlu te xale yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñu ñu soxla woon lañu ci réew mi ñi nga xam ni nag feebar nañu wala gaañu nañ ci am nañ ci ay gaañu gaañu ñu ngi leen di massawu euh, incha allah maa ngi wax barki démb rek ministre de l'intérieur na ànd ak ministre de la santé dem seeti leen ñoom ñëpp ndax ñoom ñëpp njabootu Sénégal lañu moo xam ànd nañoo gouvernement wala ànduñu ci moo xamit ku doon dox soxlaam rek dajeeg ñoom. am ci loo xam ni dal na ko ci ñoom ñëpp ay doomu Sénégal lañu bu ñu ay doomu Sénégal it ay doomu aadama lañu war nañ leen jàppale incha allah ci loolu président dogal na nañ dafay enquête ndax bu la mbir dalee da koy gëstu xool ko bu baax a baax a baax a baax xam li ci nekk yëpp jéem ko utal ay saafara ndax fexe mu bañ laa dalaat ndax booy jiite nekk ci biir gouvernement. noonu nga war a doxale am na ñu ci ñàkk seen liggéey am na ci ay entreprise yoo xam ni yàqule nañ ci lu bëree bëri am na ñoo xam ni dañ fi ñëw rek am nañ ci loraange activité économique bi gis nañ ko sooxee na ci dinañu saytu li nga xam ni yàqu na képp koo xam ne war nañ la ci mën a dimbali dinañu xool lan la yoon santaane ñu def ko bu ñu la mënul dimbali dinañ la ma saw ndax loolu sunu cër la en tant que gouvernement dina am nag ay mécanisme yoo xam ni ni ko ay pexe yoo xam ni président neen nañ ko seet gëstu ko ci gouvernement bi ginnaaw bu ñu saytoo ñi nga xam ne am nañ ci ay yàqu-yàqu ñu xool nu ñu leen di jàppale ñoom ñëpp barki démb yàlla dogaloon na ma dem seeti BRT bi BRT bi muy investissement bu mucc ayib ndax boo amee ci sa réew loo xam ni bu sot bu sottee daanaka ci Afrique beneen réew amu ko trois cent mille personnes mën nañ ko jël bés bu nekk war a mën a jóge géejawaay ñëw ba Petersen wala jóge Petersen dem ba géejawaay ak li nekk ci diggante bi yëpp muy bus boo xam ni daanaka ci solaire lay dox donc li nga xam ni dañ koy wax léegi ci wàllu euh, environnement nga xam ni ñépp lay wàññi loolu yëpp réglé nañ ko ci boo amee investissement bu mel noonu ñu waroon ko inauguré ci nu mu gën a gaawee ñu tojati ko lépp loolu ñu ngi koy ñaawlu di ko condamné loolu lu réew mi bokk la lu réew mi moom la moo tax ba ñu fa jógee président sant nañu nañ ko defaraat nu mu gën a gaawee maanaam nañ jëlaat ci alalu réew mi delloo ci defar ko nu mu gën a gaawee ndax nit ñi mën ko jëfandikoo balaa at bi di jeex gis nañ it li nga xam ni xew na ci université bi lafa am ñëpp ñaawlu ko ndax université yàgg nañ fa gis yàgg nañ fa dégg ay grève gis nañu restaurant universitaire yenn saa ñu togg loo xam ni neexul nit ñi xale yi jàmbaar euh, jàmbaarloog euh, force de l'ordre loolu yëpp gis nañ ko gis nañ fa ay grève yoo xam ni ci yeneen thème la waaye dugg ci biir université taal amphithéâtre bi dugg ci biir université taal bibliothèque bi defe naa ni xëy na guléet la am ci Sénégal jàpp naa ni it àdduna yëpp amu fi gën nañ ni loolu ñi ko def du ñu ay étudiant kese ñeneen la ñu leen raxsi dugg ci biir université bi def loolu waaye ministère de l'intérieur ak ministère de la justice surtout ñu ngi def enquête pour ñu xam loolu lan moo ko waral lu ci mënti nekk dinañu fexe ba defaraat ko nu mu gën a gaawe muy loo xamante ni am na yeneen xale yu doon xaar am na yeneen université yu ñu doon tabax xëy na foofu lay xaw a yéexee tuuti te loolu yépp réew mi lay wàññi doomu réew mi lay wàññi mais li ñu gis ci xew-xew bi mujjee am dafa doon loo xam ni it ëpp na dayoo ndax manifestation politique dëgg la am na yàgg na amit ci biir Sénégal ñu bañ a juboo di xëccoo loolu it yàgg na fee am am na it ci réew yépp du fii rek la am waaye damay dem ci usine ndox ku ndox mi nga xam ni moom la nit ñi di naan ci biir Ndakaaru nga ne naa yàq tuyau ba kenn dootul amati ndox wala nga dem ci centrale bi joxe courant nga ne nañ ko yàq wala nga dem ci dépôt wu carburant ne da nga ko yàq loolu yëpp gis nañ ko ci manifestation bii passé muy loo xam ni ñu ngi koy ñaawlu bu baax ndokk nag bi nga xam ni gouvernement bi organisé wu na yëg na ko moo tax may wax léegi ci kàllaama nasaraan sécurité publique am na loo xam ni doo ko wax da nga koy yëg xam ko jël ci matukaay yi ci war may félicité suñuy force de l'ordre force de sécurité ci liggéey bu mucc ayib bi ñu def ndax la nga xam ni yëg nañ ko wala yëgoon nañ ko bu amee woon na ko ñoo ñu bëggee woon xëy na bu boobaa du ñu wax fukki nit ak juróom-benn wala du ñu wax euh, fa ñaar fukki nit la ñuy wax ay téeméer ay téeméer wala ay junni nit ñoo ci mën a ñàkk seen bakkan ndax euh, dépôt wu carburant bu explosé kenn xam fu mu yem centrale électrique bu explosé kenn xamul fu mu yem te loolu yëpp am na ñoo xam ni duggoon nañu sunu biir. di ko jéem a def ci réew mi ci fan yi passé moo tax munuñu lu dul ginnaaw bu ñu masawoo ñi nga xam ne gaañu nañu masawoo ñi nga xam ne euh, jaale ñi nga xam ne seen bakkan ñàkk nañ ko mais rafetlu aussi liggéey bi nga xam ne force de défense yi ak sécurité def nañu ko aar ñu ñun ñëpp moo xam dañoo bokk ci parti moo xam bokkuñu ci parti moo xam sénégalais lañu moo xam du ñu sénégalais ndax loolu buñ ko laaloon du ma ne sénégalais rek ñu am jafe-jafe waaye képp kuy dund ci réew mi di ci am mettit di nga ci am jafe-jafe loolu moom moo tax gouvernement bi dina def enquête yu xóot pour xam loolu yëpp lan moo ko andi lan moo ko waral jéem ko utal ay ay ay saafara ci biir loolu nag am na ay xale yu ñu jàpp jàpp nañu am ñu ñu jàpp képp koo xam ne mineur nga maanaam say at tolluwul ci fukki at ak juróom-ñett wala ñi nga xam ne ay élèves lañu te ñu nekk ci fin d'année président de la République ma dem wax nañu nañu nañ leen bàyyi nu mu gën a gaawee ñoo ñëpp delloo nañu seen waajur waxtaana aussi ak seen waajur je pense que ministre de la justice wax na ci léegi am na ñoo xam ne am na lu bari lu ñu leen jiiñ mais nag réewu droit la ñu nekk nit ki boo ko jiiñee xëy na def na ko xëy na defu ko xëy na da cee tombe wala tombe wu ci loolu juge rek moo ko mën a wax mais ñu ngi ministère de la justice ñaan nañ ko pour ñu xool yan matukaay lañuy jox justice ndax yooyu mën a gaaw pour ñu ñëpp ku ci nekk mën a la nga xam ne def nga ko ñu teg la daan bi dëppoog la nga def bu loo xam ne defoo ko it ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi la ndax Sénégal réewu droit la Sénégal réewu jàmm la Sénégal réew la moo xam ne ñu ñëpp dañoo bokk ndey bokk baay ku fi am mettit lu mu tuuti tuuti wala lu métti bi rëy rëy boo fa demee dinga fa gis ñoo xam ni bokku leen xalaat noonu la Sénégal bindoo kon am na loo xam ni xajul ci réew mi am na loo xam ni xajul ci ni ñuy dundee fii ci biir Sénégal moo tax euh, ñuy ñaan ku ci nekk booy def boo amee lu la naqari nga jéem a aar la nga xam ni ñun ñëpp dañu ko dañu ko bokk surtout la nga xam ni ñu ngi koy def lépp réew mi moo ko moom gouvernement Sénégal nag li ñu leen yitteel mooy na yëfi leer na yëfi leer du euh, rek di wax déedéet na yëfi leer donc enquêtes yi incha allah dinañ ko euh, continuer fexe moro ñu koy def ci tekk bañ ci boole publicité bu bari ndax liggéey bu sérieux jëm ci état jëm ci askan wi yépp lu ñu war a xool la avec beaucoup de sérénité jarul di yuuxu jarul di da koy xool jox ko nag boroom xam-xam yi ñu xool ko mën la wax naka nga koy saafara ak la nga xam ni war na am li am ba des mooy daal lépp luñ ci xam dinañ ko waxtaan ak yéen moo tax ma wax léegi weer bu nekk gouvernement bi soit ci forme bi en tout cas ñëw ci thème yi nga xam ni moom mooy thème yi nekk ci actualité ñu ñëw waxtaan ci ak yéen ñetti ministre wala ñeenti ministre mais loolu terewul loolu terewul ministère bu nekk sant nañ la jox nañ la ndogal nga organiser wu pour que ci wàllu communication nga mën a nekk à la disposition de la presse di waxtaan ak ñoom moo xam service su communication la moo tax gis nañu li nga xam ne ay progrès yoo xam ne am na ci ministère de l'intérieur ak yeneen ministère ñoom porte-parole loolu dafa am solo am service de communication boo xam ni gën na étoffé loolu yëpp lu am solo la ministère yëpp incha allah ñi nekk fi ak yeneen ministère dinañ ko am loolu yëpp day yokk euh, li nga xam ni dina doon dialogue entre ñun ak taskatu xabaar yi ci wàllu primature fii am nañ fi bureau d'information gouvernementale boo xam ni dinañ ko gën a dooleel pour que ngeen di waxtaan ak ñoom aussi lépp loo xam ne information la ci gouvernement bi ñu mën leen ko jox parce que li ñuy jàngat ci mbir mi mooy manipulation bi daf ci bari loolu lañ jàngat te li ñu gis moom mooy ay nit ñu organiser law pour bëgg a yàqu Sénégal loolu gis nañ ko ci ndax li jiitu lépp mooy cyber attaque dañoo xëy Sénégal internet wala communication gouvernement dara doxatu fi or xam ngeen ni loolu bu doxulee réew mi day taxaw kooku ñëpp lay lor cyber attaque am na fi bi mu fi amee service su gouvernement bi comme bii présidence de la république ak yeneen ministère bu ci nekk Euh, benn doxatu ci woon heureusement ñu am ay experts yu fi nekk ñu mën ñu assurer suñu sécurité assurer suñu défense comme ni ko force de l'ordre di defee ci mbedd mi ndax foofu la ñu toll woon ndax dañoo bëggoon yàq lu bëree bëri lekk seen réseaux informatique amoon na ay jafe-jafe ak yeneen yu mel noonu moo tax ñuy ñaan acteurs yëpp acteur u société civile journaliste acteur politique ku mënti nekk boo gisee loo xam ni ci réew mi posé na la problème nga ñëw waxtaan ko ak autorité yi en tout cas euh, gouvernement bi euh, président sant na leen euh, même ci conseil bu mujj bi sax nañu ubbeeku wax ak ñëpp joxe la bonne information et ça c'est important maintenant journaliste bi nag moom moo yor ana bu analyser ba pare bu la dégloo déglu sa moroom déglu ñeneen xoolal boppam bu boobaa nag moom libre na ci commentaire am libre na ci analyse am nga d'accord ak moom wala nga bañ a d'accord mais loolu au moins dina fekk mu am information yépp ni mu bindoo loolu dina gën a rafetal diggante bi gën a rafetal communication bi muy journaliste muy gouvernement muy ñu nekk ci opposition ñun ñëpp li ñu war a yitteel mooy defar réew mi li ñu war a yitteel mooy tabax réew mi parce que ku yàq réew mi bu ñu la ko joxee da ngay ak moom ñeneen a koy jariñoo waaye du doon yow ndax réew mu amul courant amul ndox moom buñ la ko joxee doo yor nit ñi doo xam nooy def ak moom te loolu yëpp gis nañu fi ñu koy jéem a def ñuy sant ñëpp euh, di leen euh, di leen gërëm may euh, sant ministre yi fi nekk di leen di dalal seen xel ndax am na fi aussi xam ne ngeen ko laaj mu jëm ci wàllu koom-koom jëm ci wàllu njëg yi kooku Karim dina ci dina ci ñëwaat mais li ma ciy wax rek mooy ci wàllu tabaski ndox yàlla dafa dogal euh, far guddi yi ñu toll man maay ministre de l'élevage effectivement ñu ngi jël jël nañu suñu disposition xam nga Sénégal dafa am administration yu am doole yoo xam ne ñu ngi topp mbir mi di ko xool di liggéey bu bu bu bu yàgg ba fi mu nekk nii xam nañu diggante daaw ak ren boo jëlee bësu tey bi nii fii tabaski bi toll nga jël xayma bës boobu ci daaw fi tabaski bi tolloon li dugg ci Sénégal ëpp na daanaka cinquante mille moutons mooy juróom fukki junni xar yoo xam ni dugg na biir Sénégal mi ngi fi moo xam dañ ko yar la moo xam yu jógee bitim réew la yi jóge Mali yi jógee Mauritanie loolu mi ngi fi ci biir Sénégal Dakar nag xaw na manqué tuuti mais gis nañu depuis démb depuis dimanche kon astafurla depuis dimanche bés bu nekk. bës bu nekk ñeenti téeméeri ñeenti junni euh, xar nañ dugg Dakaaru par bés euh, li ko waral nag mooy xeexoo yu fi amoon moo tax réew mu am ay jafe-jafe baaxul parce que ku nekk da ngay moytu mooy première raison la deuxième raison aussi Dakar dafa xat donc nii gaañee di def dañuy bàyyi ba mu des semaine doog a andi seen i xar Dakar pour dund gi parce que fii la gën a chéré pour ndox mi fii la gën a chéré courant bi fii la gën a chéré mais incha allah ñu ngi dalal seen xel bu baax tabaski bi bu ci yàlla àndee dara du fi manqué te incha allah incha allah njëg yi aussi xam naa ni Karim diñ ci ñëwaat léegi njëg yi aussi gouvernement mi ngi liggéey pour njëg yi bañ a yokk mais seetlu nañ nag bu taba feet jógee jubee moo xam tabaski la moo xam korité la moo xam Noël la moo xam Pâques commerce moom commerce la rek dafa am loi wu ak demande mais gouvernement bi dina veiller ba approvisionnement bi doy ba nga xam ni képp koo xam ni war nga euh, am loo soxla ci euh, bés yooyu nga mën ko am ci anam bu mu gën a rafete ak bu mu gën a yombee ma leen di sant di leen gërëm may jox kàddu ministre de la justice pour li nga xam ni wax na ko mu tënk ko bu ñu paree ñu teg ci ministre de l'intérieur parce que ordre boobu lañ ko defee woon sànq après ministre des forces armées ñëw ci sunu diggante ak société civile ak droit de l'homme ak ban jàngat la ci taxaw taxawaayu Sénégal enfin ministre porte-parole du gouvernement ñëwaat ci mbir mi waxtaan ak yéen gën leen ko leeral donc sans tarder mooy jox ministre de la justice kàddu gi. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot ci réew mi ak bitim réew.